Euh, ñëw bi li ko waraloon mooy euh, démb dañoo jot comme information que euh, mairie bi mairie bu Saint-Louis à travers monsieur Mansour Faye dañoo ñëw fii au niveau de Ngalel ak Bango pour démolir ay kër yoo xam ne dañ ko fee tabax ñu ñëwoon doon indi sunu soutien ak sunu compassion par rapport à la population par rapport ak euh, ñi nga xamante ni tey naqar woowu dal na seen kaw euh, di ko dénoncé waale aussi ndax li nga xamante ni moo ci am du depuis le début ba fi mu agsi nii ndax ñun dañoo jàpp ni bu fekkee dañoo nekk ci am réew moo xam ne yoon moo fi dox ay nit wala benn population ñu permettre leen ñu ah, gis ay terrain wala ñu jox leen ay terrain ñu fay tabax difa tabax ba ñew ba tambali fa dëkk ba maire bi en question man leena sax dugalal ay tuyau pour ndox ñu xey xey un bonjour ñu ñew di démolir ay kër euh ñun xamuñu ban explication ak lan moko waral donc inquiétude bobu lan ci amone moy li nga xamanteni mom mo ci dolli ko bu wesso ñew mastaw population bi ak ak di dénoncer acte yu yi nga au niveau de Saint-Louis qui Ngalel ak ak Bango. parce que position bi depuis le début ndax euh, suma rappelle bi problème dig bi am bu ci am maire bi promettre au mois de mars mois de mars 2019 on a les solutions pour Bolbi mais. mars 2019 jàll na ñogi ban mois on est au mois d'octobre 2019 jusque là rien n'a été fait donc moy li nga xamanteni ni loolu lay maire bi di woné ak ñi nga xamanteni ni nyongi, ñi nga xamni ñom lañ dénk tay sunum rew ñu war ko doxal ndax bu fekkee wa chaque fois bo élection day jub si nga askan wi bo élection jallé nga def li la neex ndax ñun recueillir nañ fi ben témoignage ben soxna di suñu yaay ben maire mënuñu bi élection yi di waaj a jub si am na kër yu nekk fële ci kër yi ñu toj la bokk ñoom ñoo leen dugalal ndox donc nan la ab nan la meeri bi mën a ñëwee jox noonu ndox wëlbatikuwaat ñëw di toj kër gi c'est illogique. Pastef nag tey taxaw na pour ànd ak population bi aussi ñu génn naqarul lii def li nga xam ni moo ci war ba tey buñ jaayee doole ba toj kër yi au moins borom kër yi ñu mën leen a indemniser wutal leen faneen fu dëkk parce que ay njaboot lañ sonn. ndax ñun ñëpp xam na ne Sénégal am fi terrain dafa métti nga nekk jeune di daan sa doole di ñaq di condamné di dajale di bokki natt di àbb di ko ci bool di di ci teg ba mat terrain nga jënd terrain di taqale say birig boo amee cent mille franc mool boo amee deux cent mille franc jënd fer ba dem ba tabax ba ñëw dëkk nga xëy xëy ñu bëgg a ñëw démolir ko noonu mais ca début ba lañ ko war na arrêté bu fekkee li ñuy def dëgg la mais tey fii nii lu fi li li ñuy def nii du dëgg du yoon mbéjum kanam nag borom moo koy fajal boppam population Saint-Louis ñoo war a génn wax ne Mansour Faye dëgg wax Macky Sall dëgg que li ñu nekkee du dëgg du yoon bu fekkee population bi nekkul en régle waroo ko bàyyi moog si ci as ci stade bi loolu mooy dëgg Pastef nag liñ ci war yëpp mooy nekk ci wetu population bi ànd ak ñoom xeex bi ba li nga xamante ni tey moo ci seen i droit ñu mën koo jot. li euh, ma yëg c'est c'est émouvant quand même parce que tay imagineel tay am na xamné buñu teudé duñu ñu tëddee du ñu nelaw euh, boo doo mën sax lek parce que ya ngi xalat à tout moment que mën nañ ñëw toj fi nga dëkk euh, déjà ñi ngi taxaw sank gis benn fenêtre bo xamné ne xalé mi ngi fa taxaw di xol c'était c'était c'était triste quand même donc dafa metti en tant que mère de famille ku nekk xam nga ni mu mel ouverture des classes nga wara tok wara yob say dom commencé nañ jang nga war leen yob si yeneen école c'est triste et j'espère que ñom en tant que père de famille en tant que ay mère de famille war nañ xol seen xol yërmande yërmande ñu xam ne li ñuy def lii du yoon mhm. donc loolu daal lañu la amoon lu ci wax di leen masawu nag aussi mhm.